allahuma callimna ma yanfa'una wanfa'na bima allamtana wa zidna ilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi alladi ahyaana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 ginnaaw buñ sante buur yàlla subhaanahu wa taala na ngi julli ci sang bu tedd bi da rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam del suwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp waxtaanu fajar bi fii ci Rewmi FM ci waxtu wi ngeen si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé ci wàllum xarala gi Jaawo Jallo mbokk yi yal nañu yàlla boole jéggal yal nañu yàlla boole nangul xam ngeen ne bés ni ki tey di yowmul jumaa dafa am bés bu mag ba nekk ci semaine bi ñu di ko duppee seydul ayam bu ñu ne seydul ayam nag ñu ne mooy sango yu bés yi bu ñu ne sango yu bés bi ñu ne mooy yowmul jumaa te yowmul jumaa mooy bisu ajuma am ngénneel yu bari yu ci nekk am ngëneel yu bari yasi buur yàlla dëxiñ subhaanahu wa taala mu daal di ko baaxee suñu yenent bi ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam ngir xëytu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam war see war a mën a manxee ay njëriñ yu dul jeex waaye ñu fas yéene leen jukkil lenn ci ngëneeli li ko tàmbalee jamono bi ñu nekk nii jamono woo xamante ne mooy waxtuy fajar ba ñu julli ci waxtu su néew ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi sallam mu di ñu baaxee ngénneelu yowmul jumaa rawatina ngénneel ba nekk ci bésu àjjuma mi nga xamante ne mooy sanguy bés yi mooy seydul ayyaam mu nekk ngéneel bu mag ba fa yàlla buur bi tabaraka wa taala dëxiñ ngir xëytu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam war a manqee njëriñ woowee ci yowmul jumaa mu nekk waxtu su néew nga xamante ne jàll na ñu daldi fa joxe waxtu wi nga xamante ne mooy waxtu yi fajar waxtu yi fajar boobu buur yàlla subhaanahu wa taala dafa am njëriñ bu mag bum ci def ci waxtu fajar moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu di ñu baaxee ci xadis bi nee nañu bokk na ci julli ya buur yàlla gën a sopp ci waxtu yu julli yooyu mooy nga julli waxtu fajar ci mbooloo nga julli waxtu yu fajar ci mbooloo yonent bi sallallahu alayhi wasalam nee na bokk na ci waxtu julli ya yàlla gën a sopp ci waxtu yu julli yooyu julli suba yowmul jumaa ci mbooloo waxtu woowu de yonent bi alayhi wa sallama nee na bokk na ci waxtu yu julli ya yàlla gën a sopp fa moom moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee ñu bokk na ci ahabu salawaatu inda salaatu subhi fi jamaati yowmul jumaati naam nee na bokk na ci ya yàlla gën sopp waxtu yu julli ya yàlla gana a sopp mooy waxtu yi julli suba bisu arjuma rawatina nga def ko ci mboolo waxtu yu julli woowu de buur yàlla suñu borom tabaraka wa daa sopp lool waxtu yu julli woowu nga julli mbooloo ci julli farata yi nga xamante ne ñoo nekk ci bés bi waaye nag julli yowmul jumaa julli suba bésu àjjuma ci mbooloo loolu jëf ju yàlla bëgg la ak neexoon ñu xam jëf yu yàlla bëgg ñu war see war a mën a tënk suñu bopp ñu war see war a mën a nekk nekkin bi nga xamante ne day dëppoo la borom bi subhaanahu wa taala bëggal boppam su ko defee loolu benn la ci ngëneelu yëmul jumaa bokk na ci ngëneelu jumaa yëmul jumaa moone ne buur yàlla tabaraka wa taala moo xamal yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko ginnaaw bu ma soppee ginnaaw bu mu nekkee sama cofel sama jaambi julli suba ci mbooloo bésu arjuma nga baaxe sama jaam yi ne bokk na ci li ma gën a sopp li sama jàmbi di def mu julli yowmul jumaa ci mbooloo waaye bokk na ci la ma gën a sopp li jàmbi di def mooy waxtuy fajar walla waxtuy julli suba jullit bi joxe ko ci mbooloo kom la gaayu baax yi doon joxe julli suba ci mbooloo ci waxtu su néew ci ginnaaw kon képp koo xamante ne yàlla baaxee na la ba nga joxe waxtu yi suba yowmul jumaa bésu arjuma nga julli suba si ci mbooloo xamal ne jëf nga jëf ju yàlla sopp ci sa jëf yi ñu ngi ñaan yàlla buur bi tabaraka wa taala ñu yàlla nangul suñu julli ya julli ci mbooloo ci waxtu su néew ci ginnaaw mu doon jëf ju mu sopp ci jëf yu doomu aadama yi di jëf te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baaxee ñu ko yal lañu ko buur yàlla fayal amin ya rabbal alamin mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ak ñun ci waxtaanu fajar bi ci mi FM 97 point ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla ñu yàlla nangul lépp lañ ko jaamu yowmul jumaa ba ñu nekk ni yàlla bu mu doon suñu mujjantilu ajjuma yal nañ ko fekkee ay ajjuma yu bari yàlla nangul ñu sàmmal ñu suñu réew ak suñu njiiti réew ak mboolem kilifa diine ya nekk ci biir réew mi amin ya rabbal alamin mbokk yi bokk na ci ngéneelu yowmul jumaa bisu àjjuma bi léegi jëlee nañ xadis bi ci saxaabi bu mag ki ñu naan abi hurayrata radiallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama qaal xayru yowmin talaat fihi shams yowmul jumaati fiihi xuliqa aadam wa fiihi uxbita wa fiihi taaba alayhi wa fiihi maata wa fiihi taqumu saa xadisun saxix albani fi saxixil abi daawud mbokk yi yal na jàmmi nekk ci yéen ak seeni njaboot jëlee nañ xadis bi ci saxaabi bu mag ki ñu naan abi hurayrata radiallahu anhu anhu nee anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal naka suñu yonent bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu xayru yowmin talaat fihi shams gën ci bés yi nga xamante ne jant bi dina ci fenk mooy yowmul jumaati mooy bésu àjjuma ndax fiixi xuliqa aadam bésu àjjuma jooju ci lañu bind suñu maam aadam wa fiixi uxbita ca lañ ko wàccee ci suuf si wa fiixi taaba alayhi ci bésu àjjuma la sàkku tuub fa yàlla ci bésu arjuma la ko yàlla nangul tuubam wa fiihi maata ca la ko buur yàlla moomee ci bésu arjuma jooju ci bésu arjuma jooju la ko buur yàlla moomee moom suñ maam aadam wa fiihi taqumu saa ci la bés pénc di taxaw comme na ko yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu déggee ci maana xadis bi maana bu yaatu bu ñu waree dugg ci taaliqaat ya ñu war a def ci maana xadis bi dinañu gis dina xaw a yaatu lool su ko defee ñu fas yéene yémandi lenn ci la nga xamante ne mooy lañ ñu cëralee ci waxtu wi mbokk yi importance su bésu àjjuma foo ko natt weesu na ko importance su yowmul jumaa dama ne foo ko natt weesu na ko ndax bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma yàlla xamal xam-xam bu kenn xamut ndege moom la yàlla buur bi tabaaraka wa won lu kenn gisul bu dee moo ñu baaxee njariñ ak importance ba yowmul jumaa làmboo bésu aljuma daf di bés bu am doole daf di bés bu am valeur fa yàlla waaye bés bi ci boppam da bés bi nga xamante ni yàlla lam ci roof ci ay ngéneel kenn mënu ko takk ba tax na sang bi sallallahu alayhi wa nañu xayru yowmin talaat fihi shams bépp bés ba jant bi di ci fenk yowmul jumaa mooy gën ci bés yooyee nga déggee ci ne bépp bés bu jant bi di fenk bésu àjjuma moo nekk bés bu gën ci bés yooyu yeneen bés yi yëpp yowmul jumaa bésu juma mooy seen sang mooy bés bu am valeur ci bés yi bésu àddina yi bésu àjjuma mooy bés bi nga xamante ne mooy bés bu am valeur ci kaw yeneen bés yi moo tax yonent bi ne xayru yawmin bés bu gën ci bés yi talaat fihi sams nga xamante ne jant bi nar naa fenk ci bés yooyu ah xam leen ne yowmul jumaa bésu ajuma muy gën ci bés yi waaw ah, bépp bés jant bi di si fenk yonent bi nee na bésu àjjuma mooy bés bi ci gën ndax fiihi xuliqa aadam fiixi xuliqa aadam yonent bi nee na ci bisu àjjuma jooju lañu bind suñu maam aadam kon yow mi nga xamante ne ñu ne ci lañu bind sa maam kon bés boobu da nga ko war a jox dayo da ko war a jox valeur danga nga war a xam dayo bés boobu ñu ne sa maam aadama alayhi salaam yowmul jumaa la ko yàlla bind kon da war a xam bés boobu valeur bi nu mu toll waroo ci def dara luy merloo sa waroo ci def dara luy merloo sa borom ndax képp ku jox gëdd sa maam ñu ne la sa maam diw sàngam kooku bés ni ki tey la ko yàlla bind bés boobu dafa war a nekk bés bu am valeur ci yow ñu ne keroog bu mu tooñee boromam ca arjanna bu mu doon sàkku njéggal ne bés boobu la sàkku njéggal bés boobu la sàkku ngir yàlla jëggal ko ca la tuub bés boobu la ko yàlla nangul tuub ba mu tuub kon bu dee xam nga bésu yowmul jumaa valeur ba mu am dang ciy déggee ne ndekk keroog sa maam aadam bu ko yàlla teree ngir mu bañ a laal garab ko tere iblis ba mu ñëwee jax-jaxal ko ak sunu yaay xawaa bi ñu laal garab bi yàlla mere leen wàcce leen ci kaw suuf ñu ne bés aljuma la wàcc ci kaw suuf si jóge ko ca arjan ñu ne waaye bésu arjuma jooju la sàkku njéggal fa boroomam nangu reconnaître na erreur ba mu def ca arjan bàkkaara ya mu jëf ca arjan ñu ne bés arjuma la tuub kon yow mi yow yaa gën a war a bari la ngay tuub ci bisu àjjuma ngir yàlla jéggal la sa bàkkaar ndax sa maam di aadam keroog bu mu jëfee bàkkaar ca àjjana bésu àjjuma lañ ko wàccee ci kaw suuf si waaye bañ ko wàccee ci kaw suuf si bésu àjjuma la tuub ci bésu arjuma la ñu nangu tuubam jooju mu tuub fayal kon yow mi nga xamante ne yow la meññ ca moom nga bàyyee ko kon yowit war nga xool sa digganteeg sa borom ndegem sa maam ba mu tooñee ba mu jëfee bàkkaar ñu wàccee ko ci suuf bésu àjjuma bésu aljuma jooju la tuub nangu ne jëf na bàkkaar ci bésu aljuma la ko yàlla nangul tuubam kon yow mii man mii ak keneen ku ñuy déglu ñun ñëpp bés ni ki tey lañu ñu war a gën a bëri la tuub ngir yàlla buur bi tabaaraka wa mu jéggal ñu suñuy bàkkaar waaye bokk na ci mandargay bés pénc walla bokk na ci valeur bi yowmul jumaa làmboo moo ne wa fiihi maata yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bésu yowmul jumaa bésu aljuma suñu maam aadama faatu ca la ko yàlla moome ca la yàlla bakkanam waaye doy na rek ñu ne sa maam di aadama alayhi salaam ñu ne bésu àjjuma la faatu loolu rekk war na laa tiis war na laa naqar war nga ci war a mën a bàyyi xel nga xam ne bésu boobu dafa war a doon bés bu am valeur ci yow waaye nag bokk na bi léegi importance ak valeur ba yowmul juma làmboo mooy wa fiihi taqumu saa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñu bés pénc yowmal qiyaama bésu àjjuma lay tombeel te bésu àjjuma lay nekk war na laa tiital yow doomu aadama war ngaa a mën a tiit yow doomu aadama ngir ne yowmal qiyaam bés yàlla nga koy taxawal yowmul jumaa mu nekk bés bi nga xamante ne mooy bésu àjjuma kon su ko defee bés bi daddi bésu ñaan bés bi daddi bési sàbbali yàlla bés bi daddi bés di tudd yàlla nu mu gën a bare waaye di ko ñaan ba tax na ñu nit ñu fas yéene leen baaxe ñaan ba nga xamante ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baaxee askan bi mu di ko baamu di ko ñaan yàlla ndax loolu yàlla dong moo ko moom ci loxoom la nekk kon ci moom dong lañ ko war a sàkkoo ndax moo koy joxe moo koy fanqal nit ki waaye mooy musal nit ki ci lépp lu nga xamante ne ñaan bi yaa ko ci muslu képp ku bëgg a xam ñaan bi nanga ñu may nopp ñu dikk yow ci ñaan boowee bi iznillahi subhaanahu wa taala moo ne ñaan bi mooy day faral di wax yow jullit bi di wax allahumma inni a'uudu bika min adaabin naar wa audu bika min adaabil qabr ndax ñaari cër yàlla dong moo leen moom mbugal ya fa nekk moom yàlla moo koy teg ku ko neex ba tax na ndegem moo moom ñaari kër yooyu mbugal ya fa nekk moo koy teg ki ko neex kon ci moom nga war a làqu nga sàkku fa mu musal mbugalu ñaari kër yooyu ndax xamuloo fuy doon sa dëkkuwaay ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa daanoon na baril muy ñaan di wax ne allahumma buur yàlla inni audu bika man maa ngi làqu fa yow ngir nga musal ma min adaabi naar ci mbugalu safara wa audu bika ngi làqu fa yow ngir nga musal min adabil qabr ci mbugalu bàmmel safara yàllaa ko moom mbugal ya fa nekk moko moom kon dee ko ñaan ngir mu musal mbugalu safara bàmmel yàlla moo dogal bu doomu aadama bi faatoo ñu gas ba mu xóot ñu tëral la fa mu nekk sa tëraayu bàmmel mbugal yu fa nekk buur yàlla moo ko fa denc moo ko fa def kon ñaan ko mu musal la ci mbugalu bàmmel ndax ñaari béréb yañu tudd ni yàllaa leen moom te doomu aadama bi xamuloo noo fay nekkee xamuloo fay mujj ba tax na dee ko ñaan ti bi sallallahu alayhi wa daanoon na bari la muy ñaan di wax ne allahumma buur yàlla inni audu bika man maa ngi fa yow ngir nga musal ma min adaabi naar ci mbugalu safara wa audu bika maa ngi fa yow ngir nga musal ma min adaabil qabr ci mbugalu bàmmel képp ku musal ci mbugalu bàmmel képp ku yàlla musal ci mbugalu safara texe nga ba tax na bés ni ki tey bésu ñaan la waaye bésu tudd yàlla la nañ leen bokk di ñaan yàlla mu musal ñu ci mbugalu safara waaye ñu ñaan ko mu musal ñu ci mbugalu bàmmel amin ya rabbal alamin moo tax dañuy waral di bëril di wax allahumma inni a'udhu bika min adabi naar buur yàlla ñu ngi làqu fa yow ngir nga musal ñu ci mbugalu safara wa audu bika min adabil qabr ñu ngi làqu fa yow ngir nga musal ñu ci mbugalu bàmmel amin ya rabbal alamin mbokk yi bés ni ki tey yowmul jumaa bokk na ci ñuy tudd yàlla nu mu gën a bëri ba tax na ñu dégtal leen xadiisu abi hurayrata radiallahu anhu an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal man qaala subhaanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marratin xuttat xataayaahu wa in kaanat mithla zabadil bahar rawahu buxaari wa muslim jëlee nañ xadis bi ci saxaabi bu mag di abi hurayrata radiallahu an nee na naka suñu yonent bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam nee na man qaala subhaanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marra nee na ku ne képp ku wax subhaanallahi set ak callaa nga ñeel na yàlla ak cant yu kawe fi yawmin ci bés bi nga wax baat bi mi'atu marrat lu toll ni téeméeri yoon yonent bi nee na xuttat xataayaahu dinañu effacer say erreur say rëcc-rëcc doonte wa in kaanat misla zabadil baxar donte dañoo toll ni puuritu gandaxu géej hadis bi buxaari ak muslim ñoo ko solo mbokk yi dañoo bëgg ngir yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar dañoo bëgg yàlla effacer ñu suñuy rëcc-rëcc wallahi bunt baa ngi nii yonent bi sallallahu alayhi wa mooy yonent bi nga xamante ne yàlla dakaa yenkeewal jëf ju tuuti wax ju tuuti nga faggu ci yiw joo xamante ne boo doon dund junniy at doo mun a matale yiw woowee yàlla moo ko baaxe moo tax mu ne ko wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yónniwuma la lu dul nga doon yërmande ñeel mbooleem mbindaa foo ni alayhi wa sallam tax na moo ñu ne ci xadiisu abi hurayrata radiallahu anhu yonent bi daf ne man qaala képp ku ne subhaanallahi wa bihamdihi cet ak cellaange yàlla deñ na set na ci lépp lañ koy bokkaale lépp lañuy ñuy bokkaale ki yàlla yàlla deñ na set na ci loole wa bi hamdihi ak cant yu kawe yamu làmboo moom dong moo yeyoo mboolem cant yu mag yi mboolem cant yu matale yi yàlla rek ko yeyoo te dañ na set lépp ci liñ koy bokkaale nga wax baat bi fii yowmin ci bés bi mi atu marratin la toll ni téeméeri yoon nga di baamu baat bi di wax subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi wa bihamdihi ngay baamu baat bi lu toll ni téeméeri yoon yonent bi nee na xuttat dinañu effacer dinañu far say bàkkaar wa in kaanat donte bàkkaar yi dañoo toll ni misla zabadil bahar puuritu géej say bàkkaar bu ñu bari ni puuritu géej nga toog bés nga tudd yàlla nga ni subhaanallahi wa bihamdihi nga di ko baamu pendant cent fois téeméeri yoon moo tax mu ne mi atu maratin nga di baamu baat bi subhaanallahi wa bihamdihi nga di ko takkaraal di ko répété pendant lu toll ni téeméeri yoon yonent bi nee na dinañu effacer say bàkkaar donte say bakkaar yi dañuy toll ni puuritu géej hadis bi Buxaari ak Muslim ñoo ko solo moo tax mu ne man qaala subhaanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'atu marratin xuttat xataayaahu wa in kaanat misla zabadil bahar rawahu Buxaari wa Muslim yi lii mooy la leen réew mi fm 97.5 andil ci waxtaanu fajar bi ci yowmul jumaa ñu ñaan yàlla suñu boroom tabaraka wa lépp lu ñu dégg ci xadis beeg bu jiitu ak bii ni ngéneelu julli fajar ci bisu arjuma ak ngéneelu yowmul jumaa ci boppam ndigéem fa la ñu bind suñu maam aadam ca lañ ko wàccee ci suuf bés bi niki tey la tuub ca lañ ko nangul tuubam bés ni ki tey la faatu bés ni ki tey la bés pénc di taxaw kon bés baa ngi nii nañ leen ko dundal ci ay ñaan ci ay tudd yàlla ci sàkku njëgal fa yàlla su ko defee ñu ràmpilil suñu bés bi ak la nga xamante ne moom la suñu yonent bi joxoñal fii ci ñetti xadis yañ leen dégtal nii yàlla ñu yàlla boolee defal dégg ak topp jaalana allahu wa iyaakum min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war leen jébbal béréb bi ñi war ñëw yëkkati xibaar ñu daal di leen jébbal béréb bi ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yaxfada bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina wa aslih a'immatana wa wulaata umuurina allahumma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baaraka allahu lii wa lakum fi lqur'aani al'adim wa nafa'ani allahu wa iyaakum bima fihi min alayaati wa dikri alhakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha lii wa lakum min kulli zambin fastaghfiruhu innahu huwa alghafurun rahim